non bàyyiwuñ ko dañuy dànk dànk la seex dañ koo laaj mu ne mu ne soxlootu leen Sa Thiès mm-hmm. loolu la wax mm-hmm. léegi mu ne instant bi ñu ne Lac de Guiers mu ne ko indi nañ ko su lu seex wax da lu moo ko waaw mais non xam lu ma la expliqué bi ñoom ñoo yor loolu staff bi ndogal boobu seex xañ na dafa xër moo tax muy wax loolu mais moo amul lu muy dogal man mii amul lu may dogal Birame amul lu muy dogal moom mu amul lu muy dogal staff bi ñooy dogal usine amul lu muy dogal qualifié amul lu muy dogal dacia amul lu muy dogal yaa may mais ku la joxoon avance la xanaa dégg ko moom laa lay expliqué ku leen ko joxoon ngeen jël ko kat waa defal naa bëgg ngeen ko wala nga ragal bay génnee làmmeñ bi non man du ma ragal doomu aadama làmb ji ragaluma si kenn làmb la am na doole day entraîné bu ñu làmb boolee rek staff bi waxtaan rek dinañ bari amoon nay jamono yaa ngi laaj de amoon nay jamono doon naa ko laaj ne woon nga buñ la ko joxee nga daan ko ba jéggi ko te doo nii te doo ma waxoon loolu man. yow ban site laa ko waxee a ban site laa ko waxee damay damay la. yaa ko wax. ban site la nga daan ko ba jéggi ko. non ban ko dinañ la ko kon Lac de Guiers boo woon ak bii a ce que nekkul da nga gis différence moo tax. man moom laa lay expliquer làmb ji. mi def buy dox ji ragaluma kon tax nga wax ba ma demee bay tiit bay tiit non non dafa nag bu ma demee bay tiit adversaire mais boo ma bàyyi bëri dem si sama sama deuxième sport bi ma def ko muy MMA dégg nga ma. Mm-hmm. ma bàyyi làmb ñu njëkk dem MMA ji bu ma demee bay tiit mbër ñu nekk sama ginnaaw yóbbu leen léegi mot seen yóbbu ma leen samay papa yóbbu ma leen samay moroom yi may àndal yóbbu ma leen bu fekkee làmb ji coono rek mooy tax ma doon roi man damaa war ci yàlla dina ko doon si kàttanu suñu borom ndax coono rek bu fekkee coono rek coono rek mooy tax nga doon roi des arènes man dinaa ko doon waaw ndax làmb lu mu làmb lu mu lu mu lu mu laaj pour ma am victoire dama koy def làmb lu mu laaj pour ma entraîner ji am dool dama koy def sama lu expliqué waaw man ëttum ëttu mbë ëttu ëttu làmbu ëttu làmbu laa juddoo yaa may dégg kuy sa maam ñu ne Modou Kan kuy sa maam ñu ne Njaati kuy sa papa ñu ne Papa Kan kooku boo doonu mbër wàcc na mais loolu yëpp gëmuma ko liwu ma ko dama dem jël sama saak dem si àll bi reyantal sama bopp yaa may dégg reyantal sama bopp ba tey ji lu mu am lii moom looloo ma ko may man góomaay kii sa papa mbër la da nga war a doon mbër non damaa dem renti sama bopp ñafe sama bopp ba am tay li ma am you know me loolu la demee